waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant tey feddali sunu pas-pas ci Cheikhul Khadim di sant Cheikh Abdoul Mountakha te di ko ñaanal suñu borom mën koo yàggal ci dolli ko wér ak mboolem kilifa diine yi nekk ci biir réew ni nga ko dañu ñëwoon tey def devoir bi nga xamante ni moo war citoyen bu dëkk ci ñëw nañ def nañ suñu vote macha allah gis nañ ne tamit fii lépp mi ngi jaar yoon dara manqué wul macha allah ñu ñu ngi voté ci jàmm ak salaam ñuy sant yàlla ndax ñu war a mat nekk ci biir dëkk yi doomu aadama yi di waxtaan ak ñoom. ngir lan ngir ñu taxaw ci loo xamante ni mooy bisu tey bi képp koo xamante ni fii ñëwoon nañ ci yow ñu ngi yëkkati suñu cant li doon dox ci yi ak benn tey jii la cëppaandaw bi tey jii la njariñ liy feeñ tey jii lañuy bisu liñ naan bis mujj ci liñ doon def tey moo doon solus bis bi kon ñi ngi yëkkati suñu cant di ko jëmale ci mbooleem kilifa boo xam ne yaa ngi ci doon def sa xel te di ci ñaan yàlla suñu borom ak dañu ci jàmm ak salaam te lépp nekk ci jàmm te suñu borom sàmm nit ñi defal leen sutura dañu dox ko jàmm ak salaam te loolu la ñu seetlu bu ñu ko tàmbalee ak léegi macha allah jàmm rek moo ci xam. déroulement bi sa wàll bopp yow nag déroulement bi mooy li ma la wax bi ñu constaté li ñu ko jot a xool ci bureau de yëpp. ak renseignement yi mu jóge feneen te bu ñu fi dañuy dem seeti yeneen yi yëguñu daal loo xam ne manqué na ci wàllu administration dañu war a def ci mbirum boobu. nit ñi ñu ngi génn ku si néew génn kon dañuy soññ nit ñi nga xamante ne seet si woon nañ leen waxtaan ak ñoom ngir ñu xam ne lañu leen doon doyal tey mooy bisu njariñ tey mooy bisu mat gi ak mottali bi kon ñu ngi lancé appel képp koo xamante ni yaa ngi de Mbacké Sénégal génn dem vote ji ci jàmm ak salaam. dellu Fatick yëpp a noppal dem ndànk dellu seen i kër taw yi képp koo yaa ngi doon yëkkati sa ay sa njaboot bu jëm ci bis bi ñoo ngi lay sant aussi di la soññi ci ñu xam ne soññee bi nañ ci gën a ci biir kër yi ñu njaboot bi ci biir kër yi dañuy sonn njaboot gi génn dem voté ji ñuy voté bu ñu voté ba noppi ñu dellu ci kër yi tey lancé appel jeunes yu góor yi ak yu jigéen yi man ñi ak ndaw ñi ñu bàyyi xel ne réew mi ñëpp ñoo ko te dañoo bëgg dana woor bi ni mu déroulé ci jàmm ak salaam ñu eggale ko ci jàmm ak salaam ba bu ngoonee yàlla suñu borom muy sottal lu mu sottal ñu xam ne loolu te mu ànd ak yar ak teggin loolu la réew mi soxla mais surtout dëkk bi ñu nekk loolu soxla loolu la kilifa yi yittewoo ci biir kon ñi ngi lancé appel ñëpp nañu génn massivement dem voté yi bu kenn xeeb sa benn carte war a voté def bokk ci opposition bi ñu ngi di tuumaal ne dafa am ñu recruter ay nervi ci yéen lan ci accusation opposition bi. waaw ah, moom amul lu ma ci tontu ndax xam nga nit moom li nga nekk di ko def ci lu baax ñi koy gis ñoo koy seede ñun ci yar ak teggin lañu